Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karim adduna xaadim ñëw na asalaamaaleykum wa rahmatullah wa adduna xaadim li doy na waar xaadim tey say président grand bu la sol tey ñetti morsa la def de hey mbay abdou doy abdou abdou la def allah hey la ilaha illallah asalaamaaleykum wa leen di ziar di leen bëggee tey moom président ñetti abdou la maye hey bu bi rafet na kan, de waaw ah, wane ko bu baax gars yi gis ko ah, jar naa jox la ko xaadim maa la ko wax barke rasulullah yi ñoo leen bii dëkk moom mooy ban dëkk a usuy usuy usuy la mbay usuy yëngo xaadim nañ dugg dëkk bi a ah, ñu taxaw oxo ay waay waay président retaan na neex na xaadim allahu akbar waaw waaw kii mooy président Idrissa Seck xale bi juddee Thiès euh, taxaw nii li nga xamante ne ko ñor rek nekk président n'est pas une fin en soi moo ko wax ci lamiñu boppam li mu yaakaar mooy président président station la bo xamantene ne bu ñu ko yeggee war a mën a yi nga xamantene mo dal doomu aadama yi lu demee ni wàllu dund lu demee ni wàllu ndox lu demee ni wàllu courant lu demee ni les infrastructures sociaux de base comme ni ko waxe waxee ci bopam allahu akbar xaadim loolu c'est loolu le président Idrissa Seck jóg pour taxaw pour saafara loolu xaadim xaadim lii doy na waar macha allah xaadim je veux vraiment qu'on me confirme si est ce que li may dégg ci réseau damay bañ kii laal ma xaadim waa ji dama ko ragal xaadim kaay ñu avancé rek macha allah hey mbay dañ jaar nii bu dee dañuy yéeg ñu yéegaat lii doy na waar allahu akbar dafa mel ni dañuy dem xaadim li ñu bëggoon rek mooy ñu wane président ak Dira ak ñetti morso yi tey moom fii la président fëlee allahu akbar hey mbay ñetti morso yi lii de am na lu muy tekki xanaa xaadim yëkkati na loxo bi xale yëpp topp ko muy nuyonte ak ñoom di saafante ak ñoom waaw. ah macha allah kii mooy Idrissa Seck waaye ça va mooy kii mooy kii mooy président Idrissa Seck sañse ci moom la ci moom la wàññeekoo maa la wax lii gone gi kajoor kajoor la yow ñun ay Ceesuwaa cees Ceesuwaay sañse rek lañ mën bëgg suñu bopp maa la wax lii kii mooy ndaamal Sénégal. ndaamal Sénégal ngoog déglul ma xale yi ni ñu idi prési idi yang ngi koy dégg sama dàll yi dinaa ko saaga fu ma tur nañu ko mu la wax ay sama dàll yu xonq yi laay génn rek fas yéene koo salaat waaw ndax yu bëla yi moom dafa neex a summeeku lool waay xaadim lañ waaxu tuuti ndax ñu gaay yi doy na allahu akbar ah ñu tëj ba ci kanam dañ doon ñamal gaay yi ah dañ doon ñamal gaay yi suba bis bi nii lañ ko tàmbalee ah, ginnaaw bi ñu génnee li ñu leen fàttalee wax rek président bi mu génnee otolam li mu njëkk a def mooy dem ci femmes yi les femmes casamançaises ñu recevoir ko waxtaan ak ñoom signé engagement ak ñoom comme ni ñu koy defee ak tous les candidats le président Idriss Seck a pris des engagements fermes pour la paix durable en Casamance. loolu dafa jare woon les images après dinañ leen ko wan incha allah yéen ñëpp ngeen gis ko donc tey fii lañ commencé fii nag mooy usuy kon na xaaral ñu daw yemale ko foofu ba ci kanam xaadim incha allah jërë ngeen jëf sama gars yi waa di nuyu ñëpp ñoom ñëpp bu ñu paree yéen ñëpp bëgg nañ leen tudd yéen saa yi day xaw a métti mais la faire incha allah y a pas de souci jaajëf xaadim ci kanam